maa jël kàddu ci bis bi nga xamante nii am na muy bis bu am solo ñu war ko bàyyi xel bokk ci membre coalition wàllu nekk membre fondateur bokk ci comme li nga xam mooy groupe parlementaire liberté et démocratie changement le premier ministre ginnaaw bi nga xamante ni jot nañu kayit wi nga xamante suñu collègue député yi yi bokk ci yeew yi yónnee nañ ko ñu ñu jot ko te joxuñu ko bu ñu ko liiree li ñu si njëkk a déplorer te ñaawlu ko mooy manque concentration bi am suñu diggante Yewwi ak Wallu parce que jàpp naa ni déglu leen ma rek man li may wax soxlu ma ko ma tàcc mbir boo si bokkee dañ laa war a yëgal mbir boo ci bokkee dañ laa war a xamal rawat na nga am expérience boo xamante nii kenn nattadu ko fii ñun boolewuñu si bokkuñ signature même noo inscrits yi bokkuñu si yëguñu leen ko te jàpp naa ni ànd balaa neex naw la da si am bi ma ko gisee ma ñëw ba si ñoom ñii ma laaj leen ne lu ngeen bëgg def ñu ne ma ah li ñu bëgg a def daal xamuñu ko man la ma war def def naa ko comme man na xawuma te bu ma xamul damay maandu man pariwuma pour wate ko damay maandu ci mbir mi ndax xawma lu mu doon monsieur le premier ministre naa ne am na lu bari bari yoo xam war nañu koo fii bi ñuy dem ñun nga xam dañuy wat li nga xamante ne mooy Touba di wax dañoo waxoon ni bu ñu jotee si nguur gi muy am majorité loi nguur jigéen dañ ko indi assemblée indee gun ko mu modification code électoral dañ ko indi indee gun ko li nga xamante ne maanaam mooy euh, modification code électoral pour Khalifa Sall ak Karim Wade mën a bokk dañ ko indi indeegun ko li nga xamante mooy dem refusion code euh, code électoral code kii bi code euh, modification code pénal bi dañ koy def parce que suñu mbokk yi nekk si yi ñu man leen a dindi indeegun ko ak li nga xam moo jëm si enquête parlementaire yi loolu lépp defuñu si dara jàpp naa ne jamono yi ñu toll nii barki démb ñu wote si bi parce que man li tax mu wote bu benn dërëm moo jëm Touba dinaa ko wote ngir Touba man ñoo fi indi kenn indiwu fi man Serigne Touba laa laa du ma keneen lépp loo xamante ni ñu ngi koy wat Sénégal bis Touba gis sama bopp du nga ko wate bu ñu doon xañ Sénégal gépp di jox Touba ma wate Touba man Touba ma gënal Sénégal moo ma gënal sama jëmm loolu moo tax wat la may wat mënu ma wate nag ñu jox la délai boo xam ne pendant six mois ñoom li ñuy def bu fekkoon tàggoon ñu fukki député ak juróom-ñaar mën nañu ko def te buñ ko xasee def dootuñu ko defaat mais ñun may nañ la del 6 mois bu fekkee leen bëgg ak li ñu waxoon defoo ko régler problème yi nga xamante mooy li am affaire corruption bi affaire yi nga xam moo jëm si ah, ah, mbënn mi yooyu defoo ko su boobaa ñun ñi nga xam ñoo bokk si coalition bii wàllu nekk liberté démocrate am nañ sañ-sañu dugal motion de censure pour askan ñu leen lii lañ waxoon may nañ ko temps bi ko waxtaan si ñu sa war a waxal mais comme waxutoon ñun nag wax dëgg yàlla jox nañ leen cër ndax man mii di waxee bi jàppee kenn defuluma point de presse kenn seetsiwu ma